الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاد عليهم نعمة وكتب على نفسه رحمة ودمن كتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار سلام فعمهم بدعوة هجت منه عليهم وعدلا وخص بالهداية وتوفيق من شاء نعمته منه فضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل, والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته ولا متمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة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 yàlla mi jàmm yàlla defal jàmm yokk ñu sutura yokk ñu kattan yokk ñu wér ñu feebar nekk ci kër gi nekk ci lopitaan bi waaye nekk di jàmm yàlla yàlla saafara yàlla yàlla subhanahu wa taala boolu ñu ma ñu aafiya yàlla ñu ma aafiya yàlla may ko mbalu dumi adama si kaw suuf jullit juuti àlaxira yàlla yërëm leen yaatal seen bàmmeel yàlla seen bàmmeel mu nekk rawta mel yàlla janna ndaw yàlla sàmmali aar leen laxale fi yàlla si yoon siraatal mustaqim mu leen si fitna musiba ak balaa cheytaan war sagal leen xam-xam war sagal leen liggéey war sagal leen àndandoo yu baax jigéen yi yàlla sàmmal leen waaye ñu defal ñu monsieur safara mbokk julli ba léegi ñu si waxtaan bi mooy yarini xale yi naka na ñu mën a toppatoo suñ njaboot yi ndax ñooy nekk ñooy nekk mag yi ëllëg suñ leen yarut si yari islam bu ñu leen yarut diine ah boobaa seen ëllëg dina métti kon nag li nga xam ne mooy gën si ñoom seen dund ak seen àllaxira moo ñu yar leen si diine woo tax yonent a alayhi salaatu wasalaam laysa hunaka indibaatun fi l axlaaqihi wala fi kalaami nabi salaa sallam fii ma rawahu imam tirmisi yonent bi alayhi salatu wasalaam si waxinam ak jikko bi nga xam moy sun roy si mom lañ wara roy indi la hadith bi nga xam imam bukhari imam tirmizi moko solo mu al maru ala dini khalilihi fanzur ahadukum man yukhallil xallil waaw comme lu ñu wax rek won ma sa xarit ma wala sa jikko yunus sallam mune nak ne nit ku nek rek nañ set ka muy àndal motax ut wut àndaloo bu baax ko xam ne boo juumee mu ne juum nga boo xam ne boo nekkul ci dëgg mu ne nekkuloo ci tamit ci mu mu ñaax la si si li nga nekk si lu baax li nga continuer ci nga xam ne kooku mooy xarit mu ne nag ku nekk rek dañ ko seetalee dañ ko seetantee ka mu bu ku la rek nañ am si moom rafet ne ah macha allah kii de ku baax la parce que ñu mu àndal ñu baax lañ waaye ki nga ay def ay mafia ay tappalekat ñoo xam ne du ay nit ñu baax bu baax nag ah ma em So tax léegi-léegi nga gis ndeysaan su gisee ni ñu indi misaal si ñi nga xam ñun si langum politique bi su ñu ne ñëpp a em politicien ñëpp parce que lu tax ñi fa jéeti ñëpp nekku ñoon di wax loo xam ne dañ koy def la wax dafa wuroo ak li def ba ku fa dugg sax soo nekkee di ku baax sax sa mbaaxaay du mun a feeñ parce que dañoo ne ngeen loo tax yonent bi salaam booy ut àndandoo rek na nga dem si groupe bi nga xam ne macha allah fu ñu leen fekk rek dañoo ne axakañ ñi ñoo ñuy topp alquran ñi ñoo ñuy topp sunna ndik foofu la baax em baax mënut a passé ñaari yi rek wala ku yokk si lii dara ah, ah, la boole si yu baax yi bon du la ñu war a xamal suñu doom yi loo tax yàlla subhaana taala di wax si alquran ne yaa ayuha alladina amanu laa tattaxizu abaakum wa ixwaanakum wa ixwaanakum awliyaa إن استحبوا الكفر عن الإيمان ومن يتولاهم منكم فأولئك هم الظالمون xata yàlla subhana taala sax mu ngi wax ak ñi gëm yàlla yi xakan yow nga am fi sa waajur yi mu yàlla ne yaa ahlazina amanu e yéen ñi gëm yàlla yi mu ne bu leen jël ibin seen waajur yi seen kilifa yi ak seen mbokka yi def leen ay kilifa yoo xam ne su fekkee ne ñoom dañ jenga dem si lo xam ne yalla manam maanaam yalla yàlla nekk si ay bida nekk si loo xam ne yàlla santaane ko nekk si loo xam ne yonent bi sam indiwu ko yalla mu ne ah bu leen top seen wajuri fofu sax hatta sax ñu leen jur am seen mbokk lañ déedéet yàlla mu ne dedet bu de ñoom duñ tana dem si yoon bobu yoon bi nga xam du yoon bi yooni siratul mustaqim mu yoon bi nga xam mom la yoon sallam bàyyi ñu su fekkene sa waajur dañ bàyyi yoon bu dem si benen yoon budul bobu sa mbokk yi dem si yoon boobu bul ne ah suma waajur lañ wala suma mbokk déedéet yàlla bu leen si toppa waaw ba tax mu yow mi nga xam ne am nga gëm yàlla yow mi nga xam ne ragal yàlla mu sa xol yàlla ngi wax yow lu tax mu ne yaa ayyuha alladina amanu ay ñu gëm yàlla laa tattaxisu bu leen jàppee abaakum seen waajur yi waaw ixwaanukum ak seen mbokk yi waaw diw suma mbokk la waaw waaye nu mu nekk nekk si si bidaa la naa ko si topp xakay ah, mu ngi oote naa dem parce que mbokk la déedéet yàlla mu mbokk boobu warloo ko mu si loo xam ne mu si loo xam ne yàlla santaane ko waaw ndax suñ ta jël li nga xam ne weedi la si kaw gom yàlla mu ne kooku nag bu leen bu leen toppa si loolu li nga war a def daal sa mbokk yi nekkee ñu xam ne ñu ngi si yoon siraatul mustaqim ñu ngi jaamu yàlla xakañ boobaa nag aadala ñoom si loolu yàlla nag nga ne soo demee ba gën a ah, man daal mbokk lañ wala waajur lañ wala lii la xaaral ma toppaleen lan la yàlla wax si yow yàlla ne o man hum minkum mu ne képp koo xam ne toppale leen si yéen ah yow nag fa mu zalimun yow bokk nga si baakaarkat yi bokk nga si ñareer bokkaas yi nga xam ne keroog yawmal qiyaama ah soo tuubut balaa nga di yàlla ni la mbugal wa ulaayka humul zaalimuun waaw dugg nga si lëndëm boo xam ne leer nekku fa dugg nga si baakaar boo xam ne suba ak ngoon yaa ngi si baakaar boobu parce que ñoom yoon biñ taana du yoon bi nga xam ne mooy mahadatu mahadatu bayda yoon bu weex bi nga xam moom la yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyee ñoom taana nañ seen yoon boo xam ne ah yooni bidaa la yoon boo xam ne daf leen ay génnee si li nga xam ne mooy alquran ak sunna mu ne soo leen toppee si yoon boobu nag yow mi doom bi wala yow mi mbokka bi nga topp sa mbokka si loolu mu ne boobaa nag bokk nga si ñu ñoo lim ne ñu réer lañ ñuy bàkkaar lañ waaw loo tax yonent nekk rek muy ñoo ñaax mbokk jullit yi si àndandoor yi waaw ak mun a doon nag waajur la Haritla, mbokala na nekk si yoon bi rek waaw su ko defee tamit yow waajur bi su tegoo si yoon boobu na mun yomba pour nga teg sa doom si yoon boobu parce que di nga xam ne yoon boobu njëriñ rek a fa nekk yoon boobu moom ku ko rek doo sànku waaye nag ku ko rek di nga te ku sànku rek di nga sànkaale sa njaboot te kera yomal xiyaama yow yaay responsible yow lañ koo laaj kullukum raain wa kullu raain masun raiyatihi bon mbokk jullit yi ñaan subhanahu wa taala mu mustaqim yàlla utal may ñu àndandoor yu baax àndandoor yu jub yoo xam ne saay buñ juumee rek ñu dégg e, jubante ñu war ñu yooni siraatul mustaqim yàlla ñu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin amin